ñun ñëpp bëggoon nañ fi toog ba ba yi jeex waaye yitte yi moo bëri euh, tey nag suñu ñëw fii euh, li ko waral bëri na waaye dama ci jukki ñaar rek wala ñett li ci njëkk mooy bu ñu gisee jeune nekk xale doon sénégalais di di yëngu ci économie wareef la tey képp ku ko yëg bu la ko sa jot mayee nga ñëw jëmbal bés bi ñëw encouragé Boucher ndax li muy def Sénégal la koy defal ndax Boucher umpalewu leen ni bu ko neexoon mu dem Amérique toog fa wala lii mu def ko Amérique waaye fii la ko defee ci réewam fi mu juddoo fi mu fekkee baax fi ko baax fekk foofu la ñëw def lii di employé sénégalais donc képp ko ko yëg ngay kilife ngay ngay ngay citoyen rek Sénégal ñor la loolu da nga ko war a rafetlu lool waaye beneen tànk bi aussi tànku mag la tànku wëllëre la ndax Boucher Sénégal yëpp xam nañ ni ma jàppe man nag dama nit koo xam ne kenn ma jam naa ne soo ma bëggee ma bëgg bëggee la boo ma jàppee ma ma gën laa jàpp te Boucher mii daf maa jàpp ba ma xam ko ndeysaan te cofuma tamit wër na loolu sama deret sama ngor mayuma mu am bés bu mel nii ma tànkam lu ko loolu mënta ne loolu moo waral sama ñëw fii may ci am mbégte mbégte bi ma ci am buusa man du ma fàtte xam nga lii mas nga ma ko wax boobu léegi mat ñaareet wala ñetteet wax nga ma ko yàgg na ba léegi maa ngi lay suivre nit nag li sëñ Blaat doon wax ne nit koo xam ne waxi démbam ak jëfi tayam bu ñu méngoo booy seet nit jàppal nit nit a ngoogu dëgg la bu fekkoon danga maa wax loolu ma toog cinq ans dix ans gisuma ko damay xam ni Boucher mii demut fen wala Boucher mii xamul lu mu bëgg waaye wax jang ma waxoon ak lii nga jëf tey wane ne xam nga fi nga jëm xam nga li nga bëgg donc dañ lay remercier di la encourager di la wax ni kër gi suñu kër la ñun ñëpp ñun ñi fi teew ñëpp jàpp ak ñiy ñëw jàpp naa ni Boucher lépp lu mu yëngu dañ cee war a jàpp Boucher ñun bu ñu xiiful bu ñu xiiful sax dinañ ñëw añ bu ñu xiiful dinañ ñëw bu ñu xiiful dinañ ñëw reer ndax sa yëf suñu yëf la te wax dëgg yàlla man na sama bopp laa wax sa ngor ak sa dëggu loolu day dama ko xam sama jëmm ji ndax nit ku nekk ku yàgg ci loxo ni ñu la téyee xam nga ko ndax ñun dañoo gis ku nekk fréquenté ku nekk ku ne ñëw ci ñun aussi ñu xam ku ne ndax sàmmkatu mboot moo xam ba cay soox te defuñu du ñuy xale ñu ngi bëgg a yàgg fi xam nañ ku nekk la nga làmboo ku ñëw ci ñun xam nañ na na say intention mais yow say intention macha allah dafa sell ba ma xam ko dafuma waaw loolu moo tax yow daal na la leer ni li sëriñ Saliou Mbacke waxoon gaañi boo ma jiitoo dinaa la dab bu ma la jiitoo dinaa la xaar waaye bu ma la gisul dinaa la wëri jërëjëf. yaa tax man fale ci réew mi Balla Gaye 2 moo ñu boole ca 2008 2009 2010 du tey démb la ku xamul nag xamoo Ketchup mën na féete woo fa mu féete ma féete fu ma féete te duñu ñaawoo te loolu la ñuy dund maag moom coow bari na ci Ketchup jëme ci nit coow bari na ci Omaro jëme ci nit waaye mosu leen dégg Ketchup ak Omaro mosulaam parce que dañu xam li ñu boole muy gannaaw bi ñu Balla Gaye dénkee kóllëre ñu war ko sàmm Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké la ñu àndee moo tax su wootee lu nu mel. c'est ma fierté ma yëg ko ma bàyyi lépp lu ma jàppoon ñëw teew ci. am naa kontaan am naa mbégte li ma koy ñaanal nag mooy. Cheikh Ketchup bii. waaw na nekk 111 Cheikh Ketchup balaa déwén yàlla na ko yàlla na ko def te Ndakaaru ak li ko ci barke borom Tuubaa. en tant que monsieur ci jàmm bëgg nañu bëgg nañu bëgg nañu bëgg allah am jom nit ku baax soo amee jom Omaro Omaro li sama a la 200 000 xaar ki wax xaar ki wax xaar indi fii. waaw amul dama ko noonu. ndax ñu bëri. waaye xam na li mu bëgg. xam na li mu te moom Amérique bu mu nekk dañ ko naw dañ ko faa dañ ko gëm te daa gëm ay waajuram nawloo ay waajuram nawloo ay famem number two waa diaspora bi jox ma benn décoration. jox ko Fadel Dakar Buzz mi indi naa ko ak DJ Yves parce waral loolu mooy seen jàppale euh, jàppale jàppale waa Amérique jàppale diaspora bi ak jàppale askan bi nga xam ne ñoo soxla ah ak ñi nekk situation moom trophée bi dinañ ko jox te yéen ñii trophée bi yéen ko moom kii nag yàlla ko yàlla jàppale lii lii lii nii c'est que coob day dem ba ku nil. dëgg la yow yow sama fierté nga. lañ dem ci kaw lañ dem ci fierté fa dem. xam naa ni di nga def fini waaye di nga def farsi saa su ma jàkkari ñëw ci réew mi nga laal ma dara bari ñoom waaye kat ma si nokku leen bañ tey yaa leen mën yaay seen baay si di fay waa si di fay waa jëm sa yab si di fay waa jëm awuli murir si di fay waa jëm

da ngaa ñëw ñu naan Sidi day toppandoo Sidi day way wayu jàmbur Sidi day def lii Sidi day wax lii tey bu ñu tuddee les deux plus grands musiciens du Sénégal dañ la ciy boole mu neex mu naqadi na ma la def noonu laa def waali na la def noonu na ma la def noonu laa def Papa Diouf na la def noonu laa def Momo Dee xale bu baax na xale bu xam àdduna nga xale bu nu yar nga xanaa xamoo musique boo koy def dalay yar dara jëy Seydina Muhammad waxuma pour mu may ma ñaar dërëm yàlla teral na ma waaye la may wax lii may wax nii moo waroon taxaw di ma ko wax ndax maay magam maay kilifaam ci aar waaye dafa am fu mu jóge ak fu mu egg loolu jom la fit ak ngor